laqil lisaani waxlulan minhu lcuqad waj'alhu daakiran wa shaakiran abad waj'al kalaami raashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta allasi allamta alxikam faliyahab bilmustafa xayra shiyam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala bi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di beral nu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 tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sangub sang yi sayiduna muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu waxoon ko ci xol ab xol ni mu amee solo ci nit nga xam ne bu baaxee eh, nit baax waaye bu yàqoo nit yàq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa toog ak saxaaba yi ne leen am na dogu nekk ci jëmm bu baaxee lépp baax waaye bu yàqoo lépp yàqu ñu ne ko dog boobu mooy wan mu ne leen mooy xool eh, ala wa inna fil jasadi mudxa isa saluxat saluxal jasadu kullu wa isa fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya xalb am na feneen fu waxaat ne sun borom tabaaraka taala du xool ci seeni melo du xool ci seeni alal waaye ci seeni xol ak seeni jëf lay xool inna allaha laa yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila xulubikum wa ahmalikum rawaawu muslim kon loolu lañ ciy déggee mooy xol bu rafet rek moom mooy jëriñ nit àdduna moo ko jëriñ tamit àllaaxira buñ demee ci alquran sax suñu borom tabaaraka wa taala day wax ci suratu shuara ay juróom-ñett fukk ak juróom-ñett di wax ne yowmal xiyaam de alal lu mu bari bari du fa jariñ kenn ay doom it lu ñu bari bari duñ fa jariñ kenn la fa jariñe daal mooy xol bu mucc yawma laa yanfau maalun wala banuuna illaa man atallah bi xalbin salim Sëriñ Tuubaa sunu yaakaar it buñ demee ci téere ba ñuy wax aljawharun nafis dafay wax ne maanaam xol bu bu bu cër yëpp dajee xol mooy buur bi xol mooy buuru cër yi lum digle la cër yëpp yi def lum tere la cër yëpp yi bàyyi fu mu jeng jëmit la cër yëpp yu jeng jëm kon loolu kenn ku nekk war naa tax nga jéem a defar sa xol te rafetal ko sëñ may Jaxate itam ci woyam yu neex ya ak njàngaleem mu mat ma dafay wax ne lu dul xol bu set lu dul xol bu rafet rek yéef ab yéefaral la ko ëppale kon nag nit ki dara du ko jariñ loolu ab xolam bu rafet moo tax mu naan lay tax nga jiitu say moroom tey ak ëllëg fa sa borom ba ñëpp naa amoo moroom du nelaw ak lekk lu duuf fexe la am lu kenn amul te loola nag yàlla asal du kër yu jag du ay alal du soxna yu sox ak foofu yéefar yi am nañuy alal te am na ñuy soxnaa ki njël yàlla la ab yéefar amul ak topp yàlla gu nangoof bari alal taxul a gën neewi alal taxul a bon lay tax ni tey gën a ko bon ca xol ba lay nëbboo ko boofu am na feneen fu muy waxaati ne jàppal sa xol bi defar ngir xol bi moo di sa kër defar sa kër bàyyi sab xol moo lu muy xala faj sa kër lu jag jag te sab xol taq répp lu bon du tax nga gën kat fa yàlla ye mbaami ngonk ki xaj sa kër lu jag-jag te sab xol taq répp lu bon du tax nga gën kat fa yàlla ye mbaami ngonk ki xaj defar sa xol bi ba xol bi leer leere kamelax moo gën di wut néega kiy sàkket yu fàtt taraj ña dëkke woon taaxi kaw tey jëf lu bon ña nga tey ca sëg yi ñuy caw yar foo tollu dégg faraj kon nañ góorlu te jéem a rafetal sunu xol te xam ne xol bu rafet Euh, mooy jariñ ab jullit tey moo koy jariñ tamit euh, ëllëg mooy taxit ngay wattande ko ay bàkkaar sa digganteeg sa borom waaye mooy taxit euh, ngay wattande ko ay àq sa digganteeg say moroom te it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu na kenn ci yéen ngëmam du mat ludul ne lam yéene boppam da ko yéene moromam mhm. kon nag nañ rafetal suñuy xol ñoo ngi santaat suñu borom tabaaraka wa bu baax sant Cheikhul di soññ sunu bopp di soññaat eh, mbokki jullit ak mbokki taalib yëpp rawatina waa daara Hikmatul mi ñi nga xam ne ni ñi ngi ci biir daara yi ñoo ngi leen di ñaan bu ñu mënee am ci carte membre yi ñu am ci ñi nga xam ne ni am nañ carte membre nga xam ne ni ñoom bokk nañ ci jamxee bi ba noppi eh, addiye yi ñuy joxe weer wu nekk it ñoo ngi leen ci soñ gannaaw buñ ci soññee sunu bopp te xam ne jëmut fenn furut ci liggéeyal sunu borom tabaraka wa taala ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir rek la jëm kon nag euh, mbokk yi nga xam ñoom ñooy toppatoo yooyu danañ ci def ay soññee fan yi incha allahu euh, ñoo ngi soññaat mbokk yi nga xam ne nii itam ñoo ngi ñuy jàppale bu baax a baax ci liggéey bi te démb ñu jaaroon ci seeni tur incha allah kon daara ji moom tàmbali na euh, ku ci bëgg ay leeral